i nag le 2 ñëw rawatina seen émission bilan ni mu koy defee at bu jot ak office des forages ba fi ma lay wax nii mun nañu wax ne dépassé nañu production bi nga xam ne amoon nañ ko daaw mu doon juróom-ñeent fukki junni mètre cube mi ngi ñëw normal fii ñu nekk noonu dañuy xel guddi ak bëccëg hôpital bi mënul manqué ndox ci ci màggal gi euh, malade bu ci nekk 400 litres ndox lay consommé ci benn jëli waaye bi guddi lay xelli ba guddeeti bi njëkkoon mooy forage yi nga xam ne yii donc bon dañu amoon jafe-jafe paan juróomi forage forage yooyu tey jii réparé nañ leen tey jii am nañ cent vingt neuf camions citernes moyens yooyu nag tey jii buñ ko doon évaluer cinq cent soixante quatorze millions te xëy na sa dana këpp